buñ ko baxalee moo ëpp yow. ay waay làmbal ndeysaan Lamine Golo ngi noonu di génn mooy entraîneur ki nga xam ne mooy Gackou 2 waaye ca wet bee ndeysaan Petit Niang ngi noonu ci géew bi. ndeysaan soo niinee dañ lay fom ndeysaan soo taxee dañ lay fom moo waral moo tax petit ñaa ngi noonu coach bi di ko fomp gàkku doon ak mu ngi yëkkati ay supporter di dalal seen xel oh père Max Mbargane ay waay waay maa ngi jàng kañ laay bari ah lamb lamb moom yomb na ah. du lu ñuy mokkal ah. Ah, toppal ci mbir mi rek bay sawaar seenu asamaan la jarul buuxante ku ne man naa bay waaram tool bi yaatu na ndeysaan ay waay ay waay pa sama papa wax na ndeysaan lii war naa tax képp ku nekk ci làmb bokk ndey bokk baay waaye maa ngi nuyu sama baay la mi samba nga xam ne lu ma am ginnaaw yàlla moom la su ma demee bay wax moom la ndeysaan mbër yaa ngi ci géew bi ndeysaan diggante gàkku doo ak petit ñaa nee naa leen làmb bii rek doyoon na grand combat ndeysaan waaye bis bi ala doome ndeysaan asan Ndiaye combat bi mu tëgg do na le grand combat sa lamb gi ni den nak sama papa la mi Samba ak alaaji Thierno Ndiaye nga xamni momay moo may rey Thierno Diagne ndeysaan borom taf bi indi ay way bu re ngi wax ndaysan lamb gi ni Petit Niang ak gako do ndaysan lamb ju neex bi rek bu fi yamon mu neex ay way ngi bajantu Ndeye Sika Kodo est-ce que yàkkamtiwul arbitre sifflé na Gaka 2 bu École Diff Balla Gaye 2 ak Petit Niang ndeysaan minimal Petit Niang mi ngi Mansour ay sama papa ji yàlla fanam gudd ndeysaan ndeysaan diggante Gaka 2 ak Petit Niang Petit Niang ma nga Euh, Gacko 2 mi ngi fi nga xam ne mooy école de l' Balla Gaye 2 Balla Gaye ndeysaan ay bi combat attention Gacko dox na ci kawam Petit Niang door na lay la xëy la la oh wa ngi door di déplacé topp na ko Gacko door na Gacko door na ko hey lay la xëy la la ñu ngi lew too ba tey ndeysaan mag lay bëre. attention premier dox na ci kawam ndeysaan ko neex na moom bekay do wa ngi ni ndeysaan di lambalok ndeysaan arbi sifflé wan na arbi sifflé wan na ndeysaan diggante gakko do ak nga xamni moy pedignan ndeysaan lamba ngi ni ndeysaan ñaari xalé delu ci wan nañ ci geew bi waaw waaw boo xoolee ñaari xale ñu war na muy gàkku deux ak xamante ne mooy petit ñaa te làmb ji fii war na fi mën a jeexee parce que xale yi bu dee entraînement wane nañ ko bu dee jom nañ ko fayda kon que le gagne rek allah. sama sama doyen wax na sama papa wax na làmb ngi ni ndeysaan saan waaw bu la lekkee arom na di nuyu sama papa Lamine Samba. ndeysaan sama papa Lamine Samba maa ngi koy nuyu papa yaa ma dalal su ma toogee di reporté tey lépp yow la ndeysaan oh lamba ngi nii dox ci diggante Petit Niang ak Gacko 2 Petit Niang mi ngi Mansour Mbaye Gacko 2 mi ngi école de lutte Guédiawaye bu Balla Gaye ndeysaan oh lamba ngi nii ndeysaan oh ndeysaan géwél yi rek ngay dégg ak reporter yi ndeysaan tëgg attention Petit Niang door na waaye cokkaas la ndeysaan at Gackou door door la Gackou door door la mais Pedignan taxaw na tibb na wax ba ndeysaan ku la def nga ay bi combat bu ñaab yàggee léegi nga war feeñ ña ña ñaari mbër ay waay waay waay waay Assane Ndiaye Baol production li nga def tey rëy na bu fi yewoon attention attention Gagou téye na loxo ba ndeysaan oh combat yi neex na ndeysaan attention xar jàpp na ko Gagou 2 Petit Petit yëkkati na ko Gagou 2 bañ na la ilaha illallah oh Gagou 2 ay Gagou 2 daan na Petit Gagou 2 daan na Petit Gagou 2 daan na Petit Bour Kakadoo daal na Boy Niang Kakadoo daal na Petit Niang Kakadoo daal na Petit Niang bii kenn rakalewu ko mbay kii nuruwut turandoom xam nga turandoom dañ koo rakalew ci prénage bi mais moom jàll na admi kii admi na admi bi mu rek damaa def dama def dama bëri mu daan may sant yàlla di sant ñëpp di sant Omar Baas la siy jàpp côté yëpp la siy jàpp di sant ñëpp ni ma bëree moom muy bëree rek ñëw dox si kawam jàpp ko muy rasu après mu mujjee ñu ni ma taxawal li ngay def doy na ma taxaw après moom bi mu bëree gis nga li xew ñu sant yàlla di sant ñëpp di sant école bi Balla Gaye gi yëpp di sant père Balla di ko ñaanal wér ak gudd fan di sant ñëpp. bëri a na coow bëri na man xam naa sama bopp. waaw xam naa ko mais ñi ko daan ñi ko daan sax daan waxuma la moom. gàkko gàkko lu nekk sa nekk sama kanam mooy ñu may ñu chance rek. mañ ñu may ñu sens ñu bëre dana dellu si kanam quoi loolu rek moo ñu intéressé. Lamine Lamine jaar naa la.